bi nga liiree solution wax ma benn point rek bu nga xamante ne yow moom moo la séduire ba nga dem ci Ousmane Sonko. la nationalisation des ressources naturelles du Sénégal. mais loolu ça a toujours été le cas ici. non euh, euh, may ma rek da nga ma laaj. mais mais mais code mais code code pétrolier bu 99 day wax si day wax loolu. day wax ne suñu ressources yi dañ koy nationaliser 99 laa la wax de boobu ab Abdoulaye toogagul sax. waa hmm. Euh, donc bul wax ne bul wax ne loolu c'est un boo xamante ne lu c'est nouveau c'est pas nouveau. d'accord léegi bàyyi ko mu tontu. allez-y ok léegi loolu loolu man damaa gis ni li am solo mooy. Hmm? c'est pas euh, euh, ay code pétrolier wala ay une une une boo xam ne dañ ko bind ba mu méngóog li nga xam ne day défendre les intérêts des Sénégalais man li ma amal solo xam mooy lan mooy l'application de cette loi là. ak impact bu muy am ci sénégalais lambda bi yaa ngi dégg aujourd'hui je pense que ni Euh, dëgg la euh, cote pétrolier amoon na waaye je pense que ni aujourd'hui le débat sur le pétrole et les ressources naturelles du Sénégal musul tax musul posé woo comme ni mu posé woo ci jamono ji ñuy wax ak yow. parce que bu parce que sous l'ère Macky Sall si lañ gis ni Sénégal. am na wax na gaz waaw moom laay wax. mais bul wax ne bon. nationaliser ressources naturel yi bon si Macky Sall la la commencé commencé wul. fii si Macky Sall waxu waxu non waxu dama ne loolu dafa amagul. amul non mais mais. maanaam aujourd'hui les ressources naturelles du Sénégal doivent servir les Sénégalais d'abord. ok et en exclusivité. Okay. parce que c'est partout loolu moo xew foo dem ci àdduna loolu moo fa dem. loolu moo fa xew.